monsieur Senghor ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay madame bu baax di nuyu say auditeurs. voilà may fàttali suñu auditeurs yi ne moom mii di Senghane Senghor moo yor bépp question bu jëm ci wàllum juridique euh, maanaam euh, yoon ak protection ca RADDHO tey jii mbir mi ñu yeewoo démb la ñuy waxtaanee muy ay nit yi nga xam ne euh, gannaaw nag benn opération bu gendarmerie am amal ci benn ci ay camp sax laa ko mën a waxee de redressement nee nañu gis nañ fa ay nit ñi nga xam ne dañ leen fa séquestrel woon waaye di leen fa maltraité euh, lan ngeen xalaat ci centre yooyu nga xam ne mu ngi fii Sénégal. madame maa ngi lay remercier bu baax ci invitation bi di wax ne loolu suñu xalaat ci li xew noonu. li ñuy njëkk a def mooy d'abord féliciter gendarmerie. Mhm. parce que loolu liggéey bu rafet la. bu ñu fuyee ba génnee loolu mais surtout remercier leen aussi ci communication bi. Mhm. parce que biñ amee information yi jox nañ ko public bi ñu xam ne lii ak lii moo xew peut-être que sax loolu dina yombal enquête bi mais ñun ci li ñuy liggéey madame muy mhm. àq ak yelleef doomu aadama liñ ci mën a wax mooy li am noonu du luñ mën a nangu ci réewi droit. Mhm. parce que réewi droit. privé du jóg mu créer moom centre boo xam ne def fay dugal ay moroom yi nitam ne def leen di redresser sans benn contrôle et li ci gën garaaw mooy dégg nañ ci sax ay décès yu ci am yu yu répété moo tax ñu ngi ñaan état bi mu continuer enquête bi te mu appliquer loi yi Sénégal yi d'ailleurs état bi dafa am obligation def parce que état bi dafa am engagement yu mu jël mm-hmm. au plan international mooy ci mbootaay xeet yi que dafay dàq lépp luy torture ba du am fii ci territoire yi sénégalais parce mhm. que torture madame dañ koy mën a assimiler ak crime te li xew paasewul dara lu du torture mhm. li ci gën a xaw a jaaxle nag parce que di tiitaange ci ñun mooy ni ñu déggee yëf yi dafa mel ni état bi sax yëguloon ne centre yooyu am na te pourtant état bi sax feneen defaa am yeneen engagement gis nga bépp centre bu état bi ubbi yor ko. Mhm. di fa dugal ay nit. privé leen seen liberté mooy mun nañoo dem ñëw même ñu bokk ci sax centre yi nga xam dañu fay dalal ñi seen xel wal mhm. centre yooyu yëpp dafa am koo xam ne bokkut ci état bi parce que moom def leen di contrôler moom la ñuy wax l'observateur national des lieux de privation de liberté mm-hmm, moom dafa war di visiter centre yooyu yi état bi am laa wax de mm-hmm. pour di fa génne lépp lu fa fekk ci loo xam ne violation droit droit ak ak yelleef doomi aadama ñi ñu fa denc la mm-hmm. alors bu ñuy teg charge yooyu ci état bi ab privé mënta jóg ci temps bi ñu wax bu yàggee noonu mu def ko ci réewi droit loolu kenn mënu ko nangu ndax am ngeen yaakaar ne dossier bi dana dem ba danañ ko topp ba mu jeex. am nañ ci yaakaar parce que lii woone pour ñun ne état bi am na volonté mooy le fait que ñu génnee information yi loolu benn aspect la deuxième aspect xam nañ aussi ne gendarmerie bu leen bàyyee. ak tuuti may leen doole. Mhm. lépp luñ ci war a xam ñoom dinañ ko génnee ñu xam ko. mais Sénégal dafa am obligation mu continuer dossier bi jusqu'à terme. Mhm. parce que lu mel noonu mënul am te duñ appliquer loi yi réew mi. loolu moom amuñ ci sax natable de toute façon ñu ngi veiller parce que xam nañ aussi ne Sénégal nag réewu pression la mais ñu ngi veiller te lu mu laaj ci wax wala jëf dinañ ko def. d'accord pour que loolu ñu régler ko te mu bañ a ki fee am. Mhm. suba 2 décembre muy bés bi nga xam ne dinañ ko jagleel abolition de l'esclavage euh, ñu fas yéene ko màggal euh, tey jii ci Afrique ndax gis ngeen ne esclavage moo ngi fi ba tey. Mmh, wax nga dëgg madame officiellement. Mmh. état yi dañuy wax ne ñoom abolir nañ esclavage mooy esclavage amatu fi. Mmh. loolu principe bi la ak li ñuy wax. mais li ñu gis ci doxalin bi ci Afrique ci société yi mooy que esclavage mu ngi fi ba tey demul fenn. mu ngi fi ba tey ci ban anam. mu ngi fi parce que euh, am na côté yoo xam ne ci Sénégal boo fa demee. Mm nekk jaam ci juddu la dépendre dépendre ci sa mën-mën ci sa xam-xam sa position ci société bi lu ñuy donn wante la ba léegi. te dañ ko gëm di ko doxal. Euh, mm. Mm. ba muy andi sax culturel foofu. oui effectivement. culturel. muy indi sax souvent ay trouble yuy jur ay violation de droits de l'homme mën naa la wax sax fan. Mm, parce que même semaine bi recevoir nañ koo xam ne Mali la dawee dugg fii nii. te lu mel noonu moo tax ñu gaañ ko dóor ko ba famille am tas mu dugg si fii muy loo xam ne ay tension lay jur. ci diggante surtout peuple yi dëkkee frontières yi Sénégal ak Mali parce que dafa am ay mbokk yu nekk Mali ñi nekk biir Sénégal ñu bokk ay ay culture bokk ay coutume bokk lépp mhm. et daanaka ñoo yem ay doxalin bien que nag Sénégal la gën a moyen marqué mais li ñu ci tiital parce que daaw def nañ ci conférence bu mag ak benn association Soninke mhm. mooy que dafay jur constamment ay tension foofu parce que ñi ñuy wax ay jàmm lañ dañoo commencé di invoquer ay textes yi ñu xam muy Nations Unies ak yi état bi engagé wu ne dafay dindi jàmm d'accord daw làkk daw làkk yooyu le waaw. et loolu am dana am importance état bi gën cee liggéey. parce que volonté état la laaj. c'est vrai que c'est d'ordre culturel mais il y a un grand travail de sensibilisation de plaidoyer boo xam ne naam ñun ñu ngi ci mais ñun amuñ doole état. Mm-hmm. Mhm. ci daw làkk yooyu la sax monsieur Senghor gis nañ ne Sénégal euh, bëri na ñim ci dalal euh, tey ji yéen ONG yi ñu ci mel ni RADDHO euh, bu ñu ñëwee fii ndax dingeen leen topp gunge leen ci yenn procédures yi ba seen taxawaay mën a yemb fii ci mim réew. madame waaw RADDHO bokk na ci question yiñ ko gën a xamee. Mm. question réfugié que ku nekk xam na ne. fanweeri at yi passé yëpp réew yi doon am trouble yëpp ñu bari buñ fa dawee buñ ñëw rado la ñuy wàcc il fut des temps même suñ siège daanaka ñu bari ci ñoom fa lañ doon fanaan mhm. parce que amuñ woon fuñ fanaan amuñ moyen donc mission yi rado loo def ci bokk dafa bokk di recevoir ñooñu buñ dawee seen réew ñëw won leen procédure yi ñu war a topp ci biir état wu Sénégal mhm. ba ñu am fi kayit yu leen fi mën a taaj mais won leen aussi procédures yi am seen yiñ mën a utiliser seen diggante ak Nations Unies assister leen aussi ci yenn yi parce que am na beaucoup de questions yoo xam ne ñoom buñ ko amee mënuñ ko régler seen bopp ci ñun aussi lañuy retourner ñëw ñu jéem ci luñ mën et il léeg-léeg mu am ñu saisir état bi pour seen question ñoom du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon Covid bi moo ci mujj rapport biñ doon lancé démb ci situation Covid bi ak droits humains question boobu mu ngi ca biir parce que xalaat nañ leen bu baax parce que dañoo gis ne état bi jël na en charge même sénégalais yi nekk extérieur état bi sóoraale na leen ci ndimbal yi mu doon joxe mais ñoom kenn sóoraale leen dañ leen fàtte ci lépp. Mm-hmm. te kenn gënu leen compliquer situation. parce que non seulement seen situation dafa jafe ci wàlli këyit wàlli yëpp mais ci wàlli liggéey. te suñ biir lañ bokk parce que fii la ñuy dund bu amee problème dafay rejaillir directement ci ñun alors ci ma dolli ci question bi ne. Mhm. ñu fi nekk lañ ñoo xam ne ñu bari ci ñoom dañ amoon problème yi sax kayit danga ci ñi ci ëpp yoruñ woon benn kayit bu firnde seen nekk Sénégal wala seen mhm. juddu wala seen leneen mhm. si bien que bu ñu amoon mandat ci banque yi wala xaalis bu ñu war a dañuy dem uti keneen koo xam ne moom moo leen koy porteel naam wax nañ ci wax ci jéem ci. Mhm. état bi def ci ay jéego aussi ba ñenn ñi ci ñoom jot ay kayit mais kayit yooyu ba léegi bari na institution privée ak même yenn service état yoo xam ñoom nee nañ bu leen ko présenté duñ ko nangu. et loolu moo tax nag ñun ñuy wax état Sénégal mu baral loxoom ci convention ci ci loi bi ko waa comité des droits de l'homme di wax ne na ko jël pour mhm. dëppale texte Sénégal yi ak convention des nations unies mhm. euh, sur les droits de l'homme mhm. sur les droits civils et politiques. d'accord monsieur Senghor ñu wax ci euh, prison yi tey jii am na ay yi nga xam ne ajoowul mandat de dépôt euh, li ni sax dem ba ministre de la justice sànni ci kàddu tey nan nga jàppee wala sax nan nga jàngatee bi lépp remarque bu maître Malick Sall. rafetlu nañ remarque maître Malick sàll bi ça veut dire que moom ci boppam jël na question bi en charge. Mm-hmm. te fekk si nañu ci liñ yàgg a wax. Mm-hmm. parce que moom voix bu officielle la parce que secteur bi moom moo ko jiite. ñun liñ yàgg a wax madame fii Sénégal mooy dem kaso def fi yomb. Mm-hmm. parce que bari na fii lu ñuy yóbboo nit kaso. mu bàyyi njobootam ci gannaaw dem toog fa du liggéey lu bari yàqu ci gannaawam te fekk jaru ko woon. jaru ko woon parce que ay délits mineurs la yoo xam ne jarul mandat de dépôt. Mm -hmm. et même ñu def la ci mandat de dépôt ñu fàttee la foofu boo amul taxawaay statistiques yi lim ñu doon jox at yi yëpp mooy que pour cent. Mhm. mooy téeméer boo jël juróom fukk fukk yi ci nekk mandat de dépôt lañ fa nekk di xaar ñu mooy atteeguñ leen téeméer boo jël ñeen fukk yi ñoom lañ atte woon. information yi ñu administration pénitentiaire yi mujj a jox nee ñu renversé nañ tendance bi. Mhm. mooy léegi boo demee ci kaso yi da fay fekk téeméer juróom-benn fukk yi nga fay fekk ci téeméer boo jël. Mhm. ñuñ ne ba pare la. mais même loolu sax chiffre bi dafa bari juróom ñeen fukk. ci téeméer boo jël ñoo xam ne dañ fa nekk di xaar ñu atte leen chiffre bi ba léegi dafa rëy benn ci mécanisme yi ñu ko mën a wàññee mooy madame ñu wàññi mandat de dépôt yi ak ñu ut yeneen solution. yenn solution comme yan par exemple. benn solution tey ñoo ngi wax waa ci bracelet électronique bi. bracelet électronique benn solution la ci. Mhm. beneen solution mu ngi fi teew boo xam ne mu ngi fi depuis deux mille un mu ngi fi. Mhm. mooy texte loi boo xam ne dañ ko voté pour mën a créer li ñuy wax ay peines alternatives à la prison. Mhm. mooy par exemple boo defee loo xam ne yenn délit yu ndaw yi la mu jar ñu tëj la ñu tëj la daan la daan boo xam ne du la yóbbu kaso ma jox la par exemple benn exemple bu yenn état yi di utiliser man gis naa bu baax koo xam ne dañ ko nar a ne pour yenn violence conjugale yeeg yooyu mais gis naa bu baax ñu condamné ko ne ko pendant six mois semaine bu jot di nga dem nga jël ci organisation féminine yi six heures de cours ci mbiri genre ak mbiri comportement bi boroom kër war a am ak soxna soxnaam. condamnation la. Mhm. à charge pour organisation boobu bu paree mu def rapport pour wone ne effectivement respecté nañ ko. am na ñoo xam mën nañ leen condamné yóbbu leen ci municipalité yi liggéey loo leen fa liggéey bu amal njëriñ bi askan. Mhm. askan wi njëriñ duñ leen ci fay parce que ñoom dañuy fay faute buñ def société bi. texte boobu 2001 lañ ko voté woon Sénégal. Mhm. xam nga lan moo tax mënuñ ko appliquer. lan décret yi lañ war a jël ak arrêté yi mu war a àndal boobu ba léegi jëluñ ko. te loolu problème bu mag la Sénégal mooy yomb na lool nga dégg voté nañ loi sàngam mais texte yi ciy topp nga xam mooy leeral niñ ko war a appliquer ñoom ñoo dul ñëw. Mhm. mën na nekk ci question bracelet électronique bi c'est vrai que texte bi jaar na assemblée voté nañ ko loi la. Mhm. ñu ko war a am yëpp ñu ngi ko yor mais li des mooy ñu jël décret d'application yi yi tax ñu mën ko appliquer ak arrêté yi leeral nan lañ koy appliquer. d'accord côté boobu état bi def fi xaw doxalinam def fi xaw a sooxe trop. Euh, Senghane Senghor euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. Euh, merci madame man maa leen di remercier.